jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo di leen jox seen waay di leen wax ne gëjoon ngeen ñu gis waaye du dara ñoo ngi ci jàmm ñoo ngi leen di a di leen bëggee boo leen gisee toogaayam nag xam ne bàyyi ma ñoo leen seet si tey bàyyi ma ñoo leen bëgg waxtaanal ah dalal ko bàyyi ko mu nuyoo après ñu gën a yaatal bàyyi nuyu naa la. waaw ginnaaw bon sant yàlla du jullit Seydina Mohamed maa ngi sant di gërëm sama ñaari waajur di leen fa la nekk yàlla sama borom dëkk leen ci barki Seydina Mohamed may ñaanal kilifay diine yi kilifay aada yi yàlla bàyyi leen fii président yàlla son borom jàppale ko ak gouvernement am opposition bi yàlla jàppale leen bépp mbindeef bi dox ci kaw suuf yàlla na yàlla son borom jàmmal ci barke Seydina Mohamed ma kontaan trop ci déplacement bi ngeen def ñëw seet si ma caaro gi waaw saare yi xam nga at mu bees mi ñu dugg nag muy premier émission boo xamante ni tey ñu ñaar ñoo ko def muy émission émission boo daf may marqué ndax ci at mu bees la xam nga. le premier la tey le premier janvier. yow laa njëkk defal émission. Mhm. kon nag yàlla doon si njëglaay. ba beneen mbër boo seet si wala koo mën a seet si àdduna rek boo defee moom émission Sénégal bàyyi ko xel may kontaan trop na si déplacement bi nga def ñëw caare yi. balaa ma tàmbali euh, samedi passé suba la samedi suba la am une semaine mhm. dañoo dem euh, conférence kii point presse mbëri mais ñu gis fa loo xamante nii daanaka. ci yow lañ ko njëkk a gisee loolu mise en sen la woon wala parce que dañoo ñëw ba foofu euh, gaa yi def conférence parce que ñu jékki-jékki rek gis gato bi ñëw ñu ne teel anniversaire lu Baye Mandione mise en sen la woon wala. waaw damay sant yàlla bu baax a baax a baax euh, di gërëm bëri Sénégal yëpp nag kenn ku ci ne ñoom ñëpp tu amul xaaj amul seen képp kuy takk ngemb rek ci mbër maa ngi lay sant di la gërëm. Ndakoro vraiment man wala billaahi wallaahi taalaa fàtte woon naa ne ko la sama anniversaire sax. bàyyi ma ko woon xel. fàtte loolu dëggoon la du woon mise en scène. waaw yow man dama war a suñu ñàkk fay doy pour lan man dama def loolu ñàkk fay doy dama dama suy adversaire fekk du sama adversaire kon maa ngi taxaw ne leen taxaw leen te arrêté laa leen wax. bu fekkoon lu ñuy kafee da koy arrêté. dëggantaan Ndiaye la ngaan yaa ngi dégg léegi nag ñoom bi ñu waxtaanee ba waxtaan bi waaye jeex ci la Malick Yandoum taxaw ne na ngeen xam ne tey la bisu anniversaire bi Baye Mandione rek gars yi ju affaire bi surprise moo ma jàpp boo xam ne affaire dafa jëlee kaw barko Rasulullah léegi mbir ju taxaw xam nga gars yi commencé tàccu gars yi seen i caméra yi di su ma geesoo muuru man tey ñii ñëpp maa ngi ñoom ñoo bokk liggéey te am na suñu bëri ñoo xamante ni bëri naa ñoom tey yaa ngi dégg te tey c'est la première fois yaa ngi dégg ma ciy sant yàlla bu baax a baax a baax na sa daf bi mu jeexee champion yi ba doon ma wax ñoom ñëpp ma tudd tournage kenn ku ne téye na sama loxo ne ma baax ma li yor yor kàkk musu am ci mbër yow rek mbër yëpp dajaloo réunion ba pare mu yem boog sa biir sa bisu adversaire ñëpp xam nga kenn ku ne am xol bu naay yéene la affaire bi xam nga ñoom Bombardier Gris Bordeaux Balla Gaye Papa Sow Boy Niang xam nga mënoo lim ñëpp quoi vraiment champion yi fa nekkoon ñoom Moussa Dioum ñoom champion yi Sénégal yëpp ya fa nekkoon yaa ngi dégg te tax bu ñuy wax may gërëm Bombardier bu baax ndax ñun mooy suñu mag. koroog du ñëw moom moo ko jëmbal ndax moom suñu kilifa la ñun ñëpp ñun bëri yëpp suñu kilifa la wax dëgg yàlla ndax moom moo fa nekkoon suñu doyen moo fa nekkoon suñu mag ñun ñëpp xam nga même Balla Gaye 2 yàlla na ko yàlla aar sàmm ko ci barki Seydina Mohamed Gris Bordeaux yàlla na ko yàlla aar yàlla sàmm ko ak mbooleem maanaam axlu làmb yëpp ndax koroog dama am surprise boo xamante ni surtout bi ma gën a marqué nag bu mbëri marqué na sëñ Mbacke Ndiaye ministre. moom ma gën a marqué ci affaire bi. donc nag waaw mbëri ni ñu def ndax boo xoolee da nga ko jox parole mu wax ba pare. bi Malick Thiam ne tey l'adversaire Baye Mandione moo a xaalis si poosam fu mu toog dan na génne leen goto ñu daggal ko fii affaire yooyu taf taf. te si la gisee moom koroog laay doog a toog moom mu def atu boobu noonu muy atu moom marqué kon nag sëñ Mbacke Ndiaye ministre yàlla yaa xam loo bëgg yàlla nag yàlla son borom dafa leer sa njaboot nit ku baax nga yàlla la yàlla son borom aar. lu askanu Sénégal bëgg yaa ngi ci koom waaw chaque jour rek fu doomu adama yi nekk rek ku xool daf lay gis te loolu nit ko def moo ko man te te bu la neexoon nga di sa sa bopp ndax dégg nga ministre xam nga te nekk nga porte parole gouvernement ci sunu pap maam Ablaye Wade kon yàlla na yàlla son borom fay sëñ Mbacke Ndiaye loolu nga ma defal ci man trop gota bi nga génn koroog si kanam kanami naw lay mbër danañ ko dagal bàyyi ma njoon comme tey laa di salaam yàlla na yàlla son borom fay kontaan trop xam nga mais mbëri la mbay daal wax dëgg yàlla ama seen fay yàlla na yàlla sama borom fay moom laay wax sa jour rek man ñun mbëri nañu rafetal fu ñu toll ndax moo tax ki nga ki la yàlla boole ngay bëre ak moom ay adversaire ngeen pour ay quelques minutes mais bu jeexee jeex jeex na bu jeexee jeex na da ngeen ne bokkaat seen day bokkaat seen bàyyi ndax boo xoolee ñun ñu woon foofu yëpp euh, ci ci Seck Dia foofu Almadi ñoo bokkoon lañ doon xeex mhm. xeex guerre bi benn la woon Gris Bordeaux bu jëlee parole wax waxal na ñëpp Bombardier bi jël na parole wax waxal na ñëpp Balla Gaye jël na parole waxal na ñëpp ak ñeneen dafa jël parole yëpp waxal nañ ñëpp parce ma dem naa ñaar ñoo yëpp Boy Niang moo njëkk a woote Pikine demoon naa ba ma demee jël naa fa parole wax li ma xam ndax su ma jë ma jëlee parole man sama samay kàddu damay njëkk ci samay rakk mbër yi. yaa ñi nga xamante ne ñu ngi bëri. day dégg di fay ko ay cent mille ay deux cent mille di toog ay ñetti trois ans def année blanche xoolal ku fay ko cent mille deux at bëriwoo mais kooku lamb arrangé wu ko kooku mu sax moo mu toog di bëri. kon nag dañuy gëstu suñuy rakk man toujours ci loolu laa insisté ba pare ñun mbëri ñu bokk nday ñu bokk bay ndax man koro gis naa loo xamante ni koro si toogaay bi sama xool dafa sedd guy ndax Gris Bordeaux moo toogoon fii micro yëpp nekk. bu Bombardier waree wax Gris Bordeaux dafa jug fi mu toog. ñëw sama wet may Bombardier mu toog. bu Bombardier waxee ba pare dafa jug moom Bombardier Balla Gaye ñëw toog fi Bombardier toogoon wax. te bu ko neexoon moom Balla Gaye wala Bombardier mu ne kii kat ñoom daal dañoo signé contrat dañoo am combat ci préparation la ne di maytun tey yooyu moo tax instant bi mbëri espèce euh, maanaam xel mi ñu yor instant bii nii wax dëgg yàlla man maa ngi koy rafetlu quoi ndax bu njëkkoon da ngay gis mbër ak mbër am combat daje noonu mais léegi gars yi dañoo silusé léegi mbër dañoo silusé ndax koroog man dama fa jàngalu bari de billaahi wallaahi tallaahi xoolal làmb ni mu fiiree mm-hmm. Bombardier toog fi mu toog ci même photo yi nga xamante ni bu njëkkoon ñoom danaa sa morom la résilience a ku nekk da yóbbaale si seize kenn wóoluwul sa morom même ñu dem ba tey yàlla dogal loolu lépp dañ fi tey am journaliste sax danaan dala naan au téléphone ngay préparé komba mooy dama laa bëgg a seet sa staff naan eh wóorul mën naa am mbëri wala te lool lépp amatul léegi mbëri journaliste yëpp lañ wóolu ñëpp ñëpp amatuñu xel ñaar si kenn yow yaa ngi toog man tey bu la suba nga dem jël mbëri yëpp kenn ñaar kenn du ne kii kër Baama Jóob la jógoon wala loolu kon instant bi gars yi ñu ngi yeew ci côté boobu moo tax toujours man ci côté boobu laay gën a wax làmba ju dara billaay am fo la am fo gasel la fo fa mun og augmenté ko ba mel ne na la yaa ngi dégg lu dajale ngeen dajaloo ngeen ñaari yoon def point de mais est ce que moo ngi am avancement waaw boo xoolee koroog Boy Dia champion la moom moo woote koroog ndax man moo jël téléphone am woo ma bi ma woowee ma ndax yi mbëri yëg nañ ko mu ne ma woo naa champion yëpp ba ci tafaatin may bëri sax woo naa ko loolu ma Boy téléphone yaa ngi dégg ma déplacé wu ñëw vraiment affaire bi naay sur Eumeu ñëw fa Korok Siteu ñëw Papa Sow ñëw ñoom Goro Sock ñoom Franc xam ma ak mbër yu bëri yoo xamante ne wax yàlla Korok ñu nga foon quoi. bi bala Balla Gaye wootee nag encore ak Gris Bordeaux bi nu wootee fee ak Bombardier euh, Almadi Boy Niang mu woote woon fee ñëw na foofu noonu kon nga xam ne affaire benn la. Mm-hmm. waaw sotti see def si rek Boy Niang boo xee bëri waxal bu ñëwee fee ne Almadi Gris Bordeaux jël parole wax Balla Gaye wax Bombardier wax mbër yëpp leen waxal comme maanaam combat benn combat kese la quoi ñu wax na président bàyyi ñu xel lu baax a baax billaahi man ma soñoon sax duñ jox mbëri cent franc benn xaalis mhm. nañu bi lamba ji bàyyi suñuy rakk yi bëri lamba ji neex man loolu laa gëm ñaamay combat yëpp kenn ku ne yaa ngi toog sabru ko xamoo lay préparé da ngay entraînement toog di xaar xamoo ndax laa mën a am ren xamoo ndax laa mën a ubbi yaa ngi entraîné te lamb dafa bëri ay fere yow boo amul combat rek da ngay fere waxuma laa nga am combat xam nga war a entraînement guddeeg bëccëg boo ñibbisee war a lekk lu baax yow ki lay masse da nga koy fay ki lay masse yow bu jógee entraînement ki lay masse da nga koy fay nga xam ne làmb dara yomb ci lépp ay moyens moo koy def ñu daal li ñu koy ñaan mooy affaire xaalis yooyu moom bu ko neexee bu mu jox mbëri cent franc. waaw no no ubbi làmb ji rek. lu ci ku ci wërsëgam nekk mu jël wërsëgam man ma soxla noonu la fay demee ndax làmb toll na foo xamante ni ñun mbëri instant bi nii cool yi naaj na yaa ngi dégg gars yi ñu ngi dajaloo fépp fépp mais xaalis fu mu bugg a seetaan dafay dugg tey Macky Sall bu xëyoon tey na may na may naa mbëri tant de milliards tant de milliards léegi nga dégg coow seen biir mais nañu defal li ñu bëgg mënu ko noon xaalis mu bi làmb ji bu bu bu nee ubbi nañ ko comme si janvier bi ne mu ubbi làmb ji ñi am combat bëri ñi amul combat yàlla jox leen euh, amay leen ay combat promoteur yi woo leen ñu tëgg seen combat ñu bëri loolu dafa neex mais man nga ma gis te mi mais mbëri dong laa gis te mbëri bu ñu ñëwee teew waxtaan ba juboo ñu ubbi làmb ji te promoteur boolewu leen ci est-ce que dina avancer. non moment bi nekkee ñun foofu di réunion Matar ba oo na promoteur yi fay bureau encore di waxtaan ak ñoom te am na promoteur yoo xam te sax Matar euh, euh, gouvernement joxe leen xaalis xaw ma vingt jox promoteur vingt cinq millions. yow maa ngi leen tey vingt ko jëloon ne mbëri lañ jox day jur coow. de jur coow ndax xam nga yaa bëgg a xam gars yi mën na toog rassemblement waxtaan ni joxente idée mais xaalis dafa saytaane xaalis day fekk ay diggante yu tax mu dugg fa rek jaxase ko. xaalis mën naa fekk nag diggante yu tax mu dugg fa gën kaar taxal waaye nag xaalis li muy yàq moo moo ëpp li muy defar. waaw man nag moo sonn nag président Macky Sall du cent franc yu mu jël di ko jox bari na ubbi làmba ji mbër yi bëre ku looy am sa wërsëg nga jël ko man loolu laa gëm quoi. Hmm. suñu jógee ci loolu dañuy ñëw ci sa combat bi nga xamante ne amoon na Gambie dama koy dagg doo ko dagg comme way way bu bees boo fi amoon dama koy dagg doo ko dagg damay dagg wee bi baa ma joon doo ko dagg combat bi yàqu ci yenn détails yooyu noonu lan moo taxoon nga bañoon dagg wee bi parce que gis nañ bi nga demee niñ la dalalee am na ay coow jot yu ci jot am am na ay détails yoo xam te jot nga ko cee dund bi Gàmbi est-ce que loolu moo gën a tax nanguloo yëf yenn sacrifice yi keroog biñ ne la da dagg sa wee bi. non man dama ne lu ma wax ci combat boobu quoi parce que passé na. Hmm. mais booy dagg da ngay dagg loo am. man xool nan ma aw ma ay we aw dara làmb ji leen a yàq daal ku la motif ci affaire yi wee rek mais man dama lu weer xatal wee ba ni may waxee yow nii xoolal maa ngi du ma weer wee sax ni may waxee yow nii maa kurus moo tax fu ma toll fu ma toll maa da jàpp damay téye kurus te boo yar say wee yenn saa yi soo soobee ci dugg xam dara te ñun xeetu seenaa moo xam ne ay jullit lan fu mu toll noo war a sell xam nga même dara man maa dul yar xatal wee sax xam nga làmb ji daal la fa demoon préparé nan ma ñàkk ci xaalis bari nag bu bëree bëree bëree bëri parce que jàppale bu dëgër laa ci amoon billaahi nga xool bii su ma yóbbu rek trois cent mille laa ko fay bi bii de gan bi xoolal loolu bu demee dépassé lépp da nga jàpp ne ñan ñoo lépp tout ñan ñoo bëggoon yàq làmb ji yaa ngi dégg non waaye waaye moo bëree xam nga ne jekkuloon kooku même bu jekkoon sax mënu maa daan man te ndax combat bu daan man tan mënu maa yëngal moom daan fi la jaar man man préparé naa ko préparation boo xamante ni korog billaahi gëm naa fi bàyyi ndax man nit ku nekk da ngay gëm li ngay liggéey gëm sa bopp loolu wóor woon tax bay bëgg a dee te waa ji bi jàkk xool ma Gambie bi nga bi nekk si biir waa ji bi bi mhm. su ma su doxee jaar fee ma woo ko naka o waay ñëwal au or muy guddi ñoom ñu commencé jaxasoo nag commencé jaaxle ndax moom mooy seen roi des arènes te ñoo bëggul ba am yoon daan ke dem jël seen drapeau drapeau euh, Adama Barrow loon ak Macky Sall président Macky Sall ma jël drapeau bi boole seen roi de l'arène jël indi Sénégal loolu lu neex su ñoom kon nag làmba ji yàqu sax moom moo gën su ñoom moo tax ñu yàq làmba ji noonu la rek mais Gambie ak Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi xoyantaan ak bàyyi ma joon ci dara duñ ci tus mu ngi mel ni nga fekk géej rek géej jël jël benn kaas otaay def ko ci noonu la mel maa xoyantaan duñ dara ci diggante Gambie Sénégal ba nu yàlla boole ñu nag waa Gambie ñu nekk benn boobu bàyyi ma joon juddul xoyantaan judduwul xam la kon nag espoir yàqu suma digganteeg moom dara yaa ngi dégg yàlla yàlla baax na promoteur bi waxtaan ma waxtaan ba juboo ma ak moom waxtaan naa xoyantaan pour ñu jël combat bi indi ko Sénégal xoyantaan dafa am combat di bëri foofu bu soobee yàlla bëree gam ba pare promoteur na taxaw suma combat ak moom ñëw Sénégal fii bëri incha allah rabbi ndax man instant bi fa nga combat am na ñu ma koy proposé yaa ngi dégg fa nga combat lan moo tax ma bëgg kombaa boobu pour ñu leeral mbir mi ndax la mu yàqoo daf maa métti mais bëgguma ñu concentré ci ay ay combat bi xamoon gam loo xam ne du daaw la woon weesu dama gis ne da ngeen waaj a bëri Sénégal bees lan dugg yàlla na yàlla sotti lépp incha allah rek ban bëri Sénégal maa ngi moom man loolu laa ñaan yàlla sama borom yaa ngi dégg ndax moom mu ngay préparé combat am man maa ngi toog fii di entraînement suñu entraînement bu bëree ba pare nag bu soobee yàlla bu nangoo ñëw Sénégal fi ñu bëri man pare naa jël léegi bu loolu weesoo ganaaw gannaaw loo ñu wax ci dina ci force ndax euh, waaw léegi buñ ñëwee ci ah, waaw léegi ci loolu laa ñëw ci loolu laa ñëw gannaaw loolu weesu na léegi bu ñu ñëwee ci ñi nga xamante ni nii mooy huis clos bi gars yi di wax hmm. est-ce que Baye Mandione pare na pour bëre huis clos barke Rasulullah promoteur bu fi jël say millions jox ko mbër di huis clos doom sa benn kilo bay ba huit huit kilo nga xam huit kilo xaw ma <laughs> nana ko jëm na kenn say xool kon jàpp nga luy doxal làmb. man tane waaye imagine yow yow nga yëkkat say millions jox ma yëkkat sama say millions jox sama man rek mu ñëw si géew bi ak ki may bëreel taxaw benn arbitre moo fa nekk. ñu ne ak ñi tëgg sabar quelques personnes stade bi moom mayuñu kenn ne fa les caméras yi moo nuy war na ñëpp doon seen gëstu daan ko télé waaw promoteur yi moom lan lay gagné après te te promoteur sponsor yi léegi ni mu dëgëroon bu njëkkoon ñooñu jox xaalis bu bëri amatul léegi ay sponsor yi échange day ñamal gars rek. Eh, mais sponsor jaxate nee na buñ ko nangule bu subaa mu tëjji ko du tëgg huit kilos. ah na dem billaay bu fi tëggee huit kilos oh, <laughs> doo am sax benn kilo na na man daal la may wax xam nga loolu affaire bi dinaa ñamal seen na kenn mu sool man de li ma gis buñ ko fi defee barke ko Rasul bu kafi fi def amoo sponsor di nga pare yaa ngi mbër mi ngeen a gendarmerie man maa nga jox mbër mi ay ticket wala mbër mi andi ay supporter am nga tëgg doo ci génn asamala nag nga ne kenn bu mu ñëw. yenn saa yoo gis combat bu mag stade bi fees jël ba ñëm ne promoteur bi yàqu na xaalis promoteur bi wàññi ay billets am billets yëpp de billets yi xoolal bu jaayee ay billets ba pare yenn ay ñaata la ñuy jaay ay 30 millions ay 20 millions yenn saa ay 15 millions wala jaay yow fek fayoon nga mbër mi mbër mu nekk cinquante millions wala mbër mu nekk nga fayoon ko quatre vingt wala mbër mu nekk tey bu fekkoon amoo sponsor bu la accompagner da ngay perte kon billet billet billet mën la fay mbër kon nag huit kilo boobu xamoo kilo ku fi bëgg ni tey jii lenn rek nga moo def mu am lenn kese kese promoteur bi wax la lii laa fere ci xaalis ah jox naa mbër mi temps jox naa mbër temps yaa ngi dégg sponsor bi jox la la nga joxoon mbëri sponsor bi jox la ko langa nga frais d'organisation yi nga yoroon yëpp sponsor bi jox la xaalis boobu bu la neexee nag bu boobaa yow jël nga sa xaalis yaa ngi dégg léegi da ngay def làmb ji pay-per-view la xaw ma. Mhm. après ah, ni ñu toog seen i kër loolu ñu jënd na ci pay-per-view yi ah, ah carte pour pour ji. Mhm. loolu mooy sa bénéfice yow loolu mën naa nekk. loolu mooy sa bénéfice mais wi ku la joxe avance ay millions. ngi mhm. dem ba làmb ji ñaari mbëri ne fa loolu da dul neex sax lamba li mu baaxoo baaxul ay huit kilos làmb li mu baaxoo ñëw taxaw tuus ànd ak say naw lay mbër ngeen bàkk lu neex a neex waykat yi way fii amateur di sañse bu rafet si kaw supporters yi supporter Azuko yi dóor si kaw. yaa ngi dégg mbër yi bàkku ci suuf loolu mooy cosaanu làmb loolu mooy aar saafara yeeg yooyu xëppoo fii toj ay ndaa affaire loolu mooy sarmu làmb mais buñ fi jëlee yooyu yëpp ne huit kilos nag huit kilos ngi noog léegi nag promoteur bu ñam na ko ku bëgg daal moom na na nay seen na na kenn nay seen ñu xool ba xam. ñu xool ba xam xool ba xam. dama jóg ne damay seeti Baye Mandione am ko ne ma soo demee dama lay yóbbante nga laajal ma ko lii ndax da doon gis Baye Mandione Baye Mandione mi bëri woon ak Modou Lo Baye Mandione mi bëri woon ak Gris Bordeaux Baye Mandione mi bëri woon ak ñoom Kayre Baye Mandione bëri woon ak Moussa Dioum ñu gisoon Baye Mandione boob bu ñëwee tuus mu neex Baye Mandione bu dugg see nga xam ne gaynde gi dugg si na mais ñu gis ne boobaak ak léegi euh, gisatuñ boobu Baye Mandione ñu gis Baye Mandione boo xamante état de forme baa ngi fi lépp a ngi fi mais bu ñëwee daal affaire day xaw des lan moo lan lan moo nekk ci diggante bi. jàmbaar may toog di wax a yow nii le même entraînement musuma ko entraînement suma carrière musuma ko entraînement musuma entraînement ba juddoo ba léegi nii. wallaahi lu leer laa la wax lu métti. mu ne bàyyi ma njoon ak bàyyi ma njoon. mu ne li may liggéey musuma ko liggéey suma carrière bari na lu bari yoo xamante ni daaw ma ko def te instant man maa ngi koy def ci entraînement. loolu leer. kon est-ce que nekkul li ma la laaj. loolu noonu da nga koo jot a dégg wala nga taxaw ci seetlu. non dégguma leen parce que tey li ma la gën a xam euh, li ma la wax mooy Sénégal boo nekkee ci tolof tolof ay jafe-jafe sa jàmb doo am njàmbaar boo nekkee ci ay tolof tolof sa njàmbaar du feeñ boo nekkee si jafe-jafe sa njàmbaar du feeñ ñoom ki ñu gëm mooy kii bëri daan chaque jour ñu naan diw diw diw kii moom fit kii moo mën a xeex kii moo mën a bëri mooy bëri daan nangam nangam te fii ku dul daan amu fi. mais bàyyi ma njoon fit baa ngi fi. déggoo li ma la wax mun amul amul dara loo xamante ni bëri na ma ko ci làmb amul. barke rasulillahi bu dee fit mën naa leen ñoppal ñoom may leen may leen ci pour mu leer ndax man dama ragal yàlla ba pare amatuma du ragal dara ci àdduna ndax boo ragalee yàlla gis doomu aadama comme yow tànk loxo no bakken baat gi ba jéeméñ ëppalewu la dara nga koy xool di ci moom xel ñaar di ragal boo xefee loolu la yàlla mën na la cee duma loolu boo ko ragal yàlla la suñu borom la boo xasee ragal yàlla amatoo droit ragal nit di ko jox cër yaa ngi dégg yàlla mooy joxe cër nga jox say morom mi nit say nawle ay doomu aadama ngeen ngeen xeetu seenaa Muhammad ngeen joxante cër mais bu ko weesoo moom ay xool ni di ragal ay diw nangam man li gën tuuma wax dëgg yàlla man man du ma genre yàlla bindee noonu quoi mënumaa tiit mënumaa def dara. ndax kon sama mais kon tolof tolof yi tolof lan moo ko waral. may sant yàlla ban tolof may sant yàlla bu baax a baax. du ma génn si biti sama benn moroom xool ma di ma yërëm amul. kenn du buñ gisee seen victoire yi nga nekkoon jékki-jékki ngay daan di la xaw a ñeewantal tuuti. jàmbaar fii yàlla suñu borom moo fi ne fii ñu bëri paa daanu génn fi benn mbër mu daanuwul si làmba ji génn ko amu fi. mbër benn mbër mu daanuwul si làmba ji mënoo ko fee génn kenn ku si ne ñam nga defet ñam nga victoire ñun ñëpp a ci bokk yam amul benn mbër mu mus daanu te du tax nag ñoom ñëpp amul benn yoon ku kenn ku ne ñun ñëpp amul ku si daanu fa benn yoon ñëpp a daanu ñëpp am ay victoire xam nga mais tey am na dynamique boo xam boo fa tolloo tey di bëri daan bëri daan jékki-jékki jafe-jafe ñëw nga bëri daanu bëri daan waat gaa yi bëgg laa dëkkal foo dëkk bëgg laa weddi du noonu nan na delloo seeni xel di xalaat yow ba ngay bëri di daan di leen jox ay victoire ñuy toog di kontaan di bég di jënd say set yaa ngi dégg di paas xaalis di dem stade la nga bëre daan ñu fekk la sa kër di la jox ay teraanga nan xalaat loolu boo daanoo nan xalaat loolu tey boo nit boo amee bis bu neex na xalaat tey ji naxar woon na boo amee bis bu naxar yi jàppal ni neexoon na loolu mooy yëfi jullit tam noonu la ma yàlla sama borom bindee lépp luy sama wërsëg ci làmba ji rek su ma ko yàlla joxee ma jël su ma ko yàlla joxul soxlaawu ma ko bu fekkee damay bëre ji ndam gën si man yàlla na ma yàlla jox bu fekkee damay bëre ji ndam gënu si man yàlla bu ma ko am man sax muy bëre loolu laa yàlla suñu borom bañ naa ko sax boobu su may dugg ci làmb su ma tegee sama tànk nii si buntu stade bi loolu laa njëkk wax ne yàlla sama borom yaa ma sàkk yaa ma moom kenn moom ma yaa ma sàkk yaa ma moom lii ma dëgmal nii nekk ci ah, war ci dëgg sama nawle julit yaa ngi dégg sama nawle doomu aadama maa ngi lay ñaan yàlla sama borom bu fekkee jongante bi ma jongante tey jii bu ndam gënee si man yàlla na ma ko jox bu gënul si man nag yàlla ma boo ma ko yàlla na ko jox sama nawle boobu man loolu laay wax donc léegi léegi lan moo tax waaw. sa xel mhm. yow la intéressé mais man damay xalaat suma xel di ko wax man la intéressé man donc loolu laay fonctionné wax dëgg yàlla saa may dugg laa am loolu laay wax. mais lan moo tax nga bàyyi ba moment bii nii ne li ma li ma li ma nekk di entraîné nii musuma ko entraîné bi ma nekkee bàyyi ma joon ba léegi. xam lan moo tax dama nekkoon ci benn dynamique yàlla def may bëri di daan may gis ku ne ci àdduna. li gis ku ne façon kilifa bu ne façon supporter bu ne ñëw na fii nii ma tollu diggante gisatuma kenn am amatul ku may fréquenté pour ay naan ataaya man déplacé tuma dem damaa damaa xëy suma ma xëyee damaa xëy dafal naa de xëy jugee entraînement war a récupérer sax suba te lu ñëw toog ma gën a ataaya teg ñu teg daanaka ci nu ngeen doon teg ci kër gi fii nii ñëpp mu fees dell su mën naa un million léegi su ma xëyee balaa midi mu jeex lépp laay séddale ni ñu toog jàpp sama ñaambur te xoolal léegi nii mën naa dix mille mu def si man deux jours wala trois jours dix mille franc la wax da daanaka xëy yor un million du yendu si man lépp laay partagé nii kon am na yoo xam bu dalee sa kaw sant yàlla suñu borom la ma tollu benn xat-xat bu doy waar boo toogee xalaat loolu ñi nga daan gis ma toll benn xat boo xamante ni gisatuma kenn ñëpp daw ndax boo nekkee ci tolof-tolof nii ay góor yàlla yaa ngi dégg ñoom ñooy des mais ñu la toppoon ngir ay victoire ak ay succès ak yeneen ak yeneen dañuy seey mais nag guur yàlla yi la jàppoon na ci yàlla tax ñooñu nga xamante ni boo bàyyi woon làmb sa diggante ñoom day continuer man ñooñu laa gën a téye te ñooñu ñoo des ak man ba ni may waxee yow man bàyyi ma gën bàyyi seen diggante day continuer man ñooñu laa nekk l'instant bii yaa ngi dégg te ma lay wax noonu am bëggul nga am ba pare man su ma xëyee jugee entraînement war a récupéré gars yi fekk ma fi jël ma yóbbu ma dem fréquentation dem benn suñu kër benn gars yi toog ma coffre affaire yooyu ma ñibbi si waat du ma am du ma am dara bu guddee su ma jugee entraînement moo moo war a tëdd gars yi fekk si ma maa bëri nangam ma ànd ak ñoom ñu dem débuté ba dem lekk ba soo dem tofu ba une heure deux heures ma ñibbi si tuuti préparé combat loolu baaxul léegi nag yàlla moomu di mën nag ma toll si jafe-jafe ñoom ñëpp gisatuma kenn ñu daw yaa ngi dégg buñ dawee nag ci la yàlla bu la namee defaral daf lay tànnal daf lay sippil la ku la jigéen nga naan wuy sam waaye mais di moo mën a bàyyi wala lii ba jàmm la ki xamul ni man sama diggante moom du ay làmb yàlla moo ma def ma jàppante te yàlla tax tey maa ngi toll diggante daw na ndax kii daw yaakaar ne ëllëg dootul neex waaye nag moom mi daw yaakaar ëllëg dootul neex yow mi nga xamante ni yow yaa toll diggante ñu lay daw jàppal li bu subaa yàlla mën naa defar la ma loolu laay dund lu ma yàlla xënteere bu subaa mën na ma mën naa may lu ko fuuf loolu bokk na ci leen gën a te xamaat sa bopp xam sa. maa ngi bu baax a baax suma papa Babacar Diop ak Mamadou Diagne maa ngi leen di sant bu baax a baax wallaahi suma papa Babacar Diop Mamadou Diagne ak suma famille sumay mag sumay rakk sumay doomi baay ak suma soxna ak ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. wallaahi ndax boo tolloo si diggante sa njaboot ak ñoo lay jigee leer laa la boo leen tolloo si diggante mu ay xat-xat boo gëstoo sa jabar ngay gis say rak say mak say mbokk ngay gis waaw ñi fa ñëwoon ñëpp. ngir victoire wala ñëwoon fa ngir xaalis ñëwoon fa ngir leneen la da dañuy see bàyyi la may wax sama moroom bëri na yeewu si loolu. làmb ji kuy téye dans ce jour yàlla may ko kenn si àdduna yàlla moo ñu bind moo ñu sàkk moo ñu moom. ah yàlla bind na nit ki nit ki màgg xam-xàmmee ne nit ki na yàlla amoo yàlla bàyyi ko foofu kon nag ñun ñun mbëri yi nga xam dañuy bëri ay mbëri làmb ku nekk na nga xool ni ngay àndal kenn ku nekk na nga vérifier ñi ngay toogal kenn ku ne na nga vérifier ñi ngay wax ci secret ndax man li ma gën a gàllankoor si làmb xam nga lan la man su ma yàlla man nit day yow tey tey sax tey tey tey no bàyyi ma gën sa fant laa nangam xoolal ma jël sa numéro man li damaa xamante yow fukki juróom di waxtaan na yow naaj du mën na ba dara yenn saa sax nit nit see tey tey tey tey tey ndey may génn comme ça may génn rek day commencé si buntu kër gi ni ma am bëri yoraa seet si woon de maa ngi jógee Tëngéej wala maa bu fekkee may génn damay jàll sama nekk si waay kaay yégal ne ko oto bi quoi ma ne ko yégal ñu dem bu yégee ma ne damay génne station wala dafa am ku may xel na na damay gunge waale ma te kooku ci bis bi laa koy doo gis imagine yooyu kon aw ma man xel ñaar si kenn aw ma aw ma ñàkk wóolte si kenn xam nga loolu moom ma gën a daal daal yorul jikko yu mbër kon moo ma a gàllankoor suma làmb du ma ko du ma la ko de sama sama sama làmb loolu ma si gën a gàllankoor loolu façon nit ku nekk mu doon ñëw fii dama lay gis see rek man yow fukki at laa xamante yow du ma la nëbb sama dara nice te lamb dafa fiir mais man musuma fiir ki dara ba ni ma tooyoo nii ma ci dara wallahi ay nit ñu wérul sax dañoo di ma seet fii ma leen di bàyyi ñu dugg sama néeg bi tëdd sama kaw lal du ma wax dara ay nit ñu wérul laa ñoo xamante ni buñ duggee si kër léegi nga ay eh, daxale wala nangam dañuy ñëw bokk ak man boolu añ ma teg ñu añandoo ma ak ñoom ataaya ñu añandoo carrément le defandoo lépp ay mbindeef lañ comme ñun nit ku lu ay mel yàlla suñu borom moo la ko def yaa ngi dégg kon nag làmba gi du dara. léegi buñ gannaaw buñ jigee ci loolu noonu yëpp waxtaan bi neex na mais damay ñëw ci diggante mbëri fan yi gis nañ euh, jokkante kàddu bi ñuy jokkante kàddu diggante Eumeu Sène la dëgg diggante guy gi ak boo yi muy àndal noo gisee lool est-ce que bokk na ci li nga xamante ni dafay doxal làmb. am nga tey mooy la ma la expliqué rek te am na bi boo xam boo ci nekkee coow du am kenn du am benn problème ak yow waaw am na dynamique boo xam boo ci nekkee tegal ay victoire yu bëree bëri doo dégg coow. mais bu defee ñëwee rek wala nga xaw a wàcc tuuti rek après ay coow day am dama bëgg suñ suñu nawle maanaam que suñu mbokk yi euh, jaam yàlla yi doomu adama yi ñu am ñuy am ngor hmm. guy gi champion la ci moom laa njëkki sampion la te bu yàlla dogalee mu ànd ay boyam yaa ma ko expliqué de ma dara waruma ci yaa ma ci laaj non am la boo duggee ci réseaux sociaux yi di nga ko gis yaa ma ci laaj ma la ko ci di ci kii di kii di kii di safara la ak buusita ñu safara ci guy gi lañ nekk waaw ay mbër lañ sax ci boppam Ah. ci guy gi lañ nekk mais ñoo génn am ay kàddu yoo xamante ni tegg nañ ko guy gi gooyewul guy gi nangamul guy gi nangamul wax ci wax yu bari surtout bari jëli nañ leen wax ci. ah. Mhm. ah man de li ma ci wax rek euh, nañ jàppante ñun ñëpp. yaa ngi dégg tey ku ci ànd ma xamal la benn secret na nga ànd ak mbër moo gën a jafe dafa jafe mbër booy ànd ak moom boo nekkul góor dëgg mënoo ànd ak mbër mais booy ànd ak mbër di teg sa sa bët ci liñ koy fay. yaa ngi dégg de wala nga teg sa bët ci oto war. wala nga teg ci sa bët ci kër gi mu dëkk wala nga teg sa bët ci kilifa yi ko yàlla boole ñu nekk ak ñoom yaa ngi dëgg de boo amul iman tuuti da ngay am xolu ñaan dañoo sew dara laa la wax. xam nga tey ñuy àndama yow. Mm-hmm. yaa ngi dëgg ñu xëy oo ma joon jox ko avance ay million mm-hmm. man mi ànd ak moom yeewoo yeewoo ma cent franc yeewaalewu ma ko cent franc. Mm-hmm. léegi yow nga yaakaar si ma Mandione tey jii Baye Mandione yëkkati tey benn un million may la ko wala benn deux millions. baa mu dem jël benn trois cent mille may wala benn cinq cent mil yaa ngi dégg yow bu fekkee tey doo nit ku maanaam jàppoo ko te yàlla tax da nga ko jàpp ngir xaalis wala yooyu da ngay wét boo wétee looy wax naan waaye kii waaye xoolal grand bi mu fayeeku jox ko avance ay million may may cinq cent mille wala may may gis nga yooyu nga gis noonu mooy dem bu mujj gi daf daf lay enal yow bu la jàppaloon te yàlla tax dafay dem mujj daf lay enal de dem bu mujj gi boo nekkee entraînement ngay gis loolu su ñoom ngay gis ay benn changement di am changement changement changement muuru la instant bii nii dañ laa tëg bët yow te man li ma gëm nit ki bu yàlla booleeg moom bi boobu xoolal saa woo xëy julli ñaar làkk yàlla gën kaa yokk moom ay minti milliards su ma sonoon man mi waxee billaahi wallaahi tallaahi xool jaam yàlla ay minti milliards la ñu doon ñëpp ñëpp am xaalis ñëpp waxuma wala ñëpp lu na bind da am xaalis yu bëree bëri ba kenn wax kenn soxla mais tey yàlla a la boolee ay mbër guy gi champion la ki ngay wax nii kan la. safara ak buusita. Ah, waaw safara tur la. <laughs> dégg naa ba léegi changé na tur bi léegi. Ah. waaw ak buusita. Hmm. ñoom ñoo am problème ak guy gi. Hmm. yàlla na yàlla sama borom saafara seen seen ay mu jeex tak bu fekkee guy gi moom moo leen mag ñoom ñaar ñooñu yaa ngi dégg guy gi na def maanaam jëfinu mag o ñaar rakam yooyu waxtaan ak ñoom ne leen erreur mënta ñàkk maa ngi tuub di jégalu ba leen maax bu fekkee nag ñaar rakam yooyu ñoom ñoo tooñ guy gi nan déplacé wu dem ba kër guy gi ne ah sunu mag kat ab ànd moom erreur mënu see ñàkk danoo jiw moon rek jégal mu jéggal leen ndax ku dul jéggal yàlla du jéggal te yàlla bu ñu génnee àdduna bay bisa penc ma suñu ñun ñëpp ñu dugg àjjana mais yàlla nag bu la defee mbindeef nga ne ci àdduna ñu lay tooñ te doo jàpp sa bopp ni képp koo gis nag muy jéggale ñu tooñ ko tooñ gu méttee métti mu jéggale booy xool nitu àjjana moo xam ne na nga xool ci kooku kooku nitu àjjana la te tey Seydina xam li tax mu gënnu yaay doy gënu la ndey gënuñu bàyyi Seydina Muhammad gënuñu yaay gënuñu pap moo wax la secret boobu tey yaa ngi dëgg mais cukko la ko yàlla sama borom tàggee jikkoom bu rafet ak ñu koy def ay métit yu baree bare muy jéggale ci la ko yàlla tàggee mu nekk gën mi def ba jàkk joo ubbi ju ne amul mburit baag xaadir baag ñeseen baag ñëppaa ci bokkam képp kuy noo da boo ne ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasulullah di nga ko ko waxul sa julli du baax sa noddo du baax mu am nag moom seen alayhi salaatu wa salaam loolu ko yàlla may jéggale moo ko may ak muñ ay natt yu bëri daj dal dal si moom bépp nattu booy xalaat bu lu métti métti métti yow nga am ko rek Seydina Mohamed yàlla tegoon na ko duwuloo muñ ko kon nag guy gi man maa koy conseillé maa ngi lay ñaan nga jéggal sa ñaar rakk yooyu yaa ngi dégg àdduna amul solo làmb day jeex ay seconde la rek après day jeex mooy mooy li may wax rek na gars yi di sàmb diggante yi ba su suñu àndamaa yow bu ñu làmb di ko fa teg nan ànd te yàlla tax nii ma loolu laa gëm nañ jël làmb teg ko fële buñ ci waree dem dem ci ci génnee ñëw taxaat xaar benn combat mais suñu diggante nit ñi buñ def affaire làmba yooyu nañ bokk ndey bokk bàyyi loolu quoi. léegi bu ma jógee ci loolu damay ñëw ci diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène am na coow loo xam jot na ci am ñenn ñi ne euh, bataille psychologique la ci Lac de ñenn ñi ne euh, Lac de Guiers dafay sosalaate yàgg na koo def te ñoom ñaar dañoo seq contrat. ah man de li ma ci wax mooy Lac de Guiers mbër mu baax la mbër mu yaru la loolu laa xam ci moom Lac de Guiers xamoo fu bunta këram féete li ma gis Lac de Guiers jaaxaan bariwul. jaaxle ni face à face lu ci bari télé bi laa koy gis yàlla moo tax may wax. yaa ngi dégg am ma seen tamit mbër mu yarul la mbër mu baax la nit ku baax la xam nga ñoom ñaan ñëpp kenn amu ci benn problème mais su ma soyoon tey Lac de Guiers laay waxal man du ma wax lii tey bu subaa ma wax la lee. Lac de Guiers yaa ngi dégg champion la te yàlla may nak ci làmb lu mayul benn mbër mooy seul mbër mi nga xamante ni mooy bëri ci làmb. yaa ngi dégg am benn defet boo xam ne kaa tëral daan ko carrément muy mu ëmb seen beneen moom Modou Lo bi ñu bëree pour mooy benn boo mën na wax ni kay mooy benn bër boo xam moo fi am dafa benn dafa ci làmb ji mm-hmm. yàlla mayu ko kenn ci làmb ji moom la ko yàlla may cër boobu ko ci làmb ko loolu nit ñi daanu bay a dee di di am ay ndam moom yàlla may ko ba mu dëree bëre ba léegi mu am ñaar defet benn bi la daanu benn bi par abandon la na nekk yëkkati loxo mbër loo jox ko victoire moom bu xoolee ci loolu rek waratu la wax mbër lu ko metti bu xoolee ci loolu waratu la def communication boo xam baaxul mm-hmm. tey toll na foo xamante ni sax euh, man maa ngi ni ngeen fekk ma fii ñu def kan laa laaj da nga fekk kenn ku naan li laa wax non non. am na am na genre yoo xam te su ma ko wax sama émission ci émission yi balaa maa def da ngeen ñëw fekk fi sama kilifa toog eh waxee lii wax lii maa ngi nii toog loo ma laaj dama la koy wax. loo ma koy wax ndax xam naa ne man ñi ma ci ay doomu aadama lañ kon man. yaa ngi dégg kon nag laaj de guerre yàgg am seen ay doom day génn yaa ngi dégg làmb moom moo leen boole pour ay seconde rek yàggul dara mais tey laaj de guerre dafa bëri isaap yi ñu laaj Mm-hmm. man a kuy mooy du ma daan. Mm-hmm. te wax dëgg yàlla xamul isaap yi dara dëkkula isaap isaap yi man maa dëkk ak moom mm-hmm. isaap yi suma mag la rakkaam njoon laay ñoo bokk turandoo bokk benn bis bu ñu moom laa maasal rek isaap yi njoon laay moom laa maasal ñoo bokk benn bis bu ñu judd ma ak moom yaa dégg laa dëggeer xamul dara isaap yi man isaap yi may kotu yàlla la kuy mooy du ma daan benn yëre la ngoogu laa dëggeer war a ak Modou Lo yaa dégg taxaw ne Modou Lo li ma la xamal bi su ma ko waxee àdduna bàyyi la ba Sénégal yëpp ne dal seen gémmante ne ah li ba jàmm la. Mhm. comme ba ba jeex lu mu wax mu ne stratégie la stratégie xam nga waaw ñi ñi fàtte loolu. Mhm. kon nag bu ënduwaatee genre wax yu mel noonu ci diggante mag Eumeu Sène mu nekk yow booy ñàkk ak Ama Baldé maanaam mbëri na sa ginnaaw nekk Pikine bëggoo ci kenn sama combat ak booy ñaa am na loo ci def waat waat si Seydina Mohamed ne xam nga. Mhm. loolu dafa xaw a waar quoi man a ma sonn daal ñu dafa diggante moom moo ëpp doole. waaw am na ku ma laan ci benn émission mais Lac de Guiers li ko waroon tey bu gisee Boy Niang nag ansama am seen ba mu si jàmm mu nekk mu si ah, sama ju baax la mu seen ngi fi mu nekk jàppal de saraka ju baax yi noonu loolu ëpp julli doxaleen moroomi jullitam tey man ngi toog tey boo ma laajoon léegi nii xam nga new fi dama lay wax lu rafet si moom loo xamante ni doon la doon la sama nit kooku mën naa toog àdduma gis sax mais damay wax lu rafet sarax la bëri naa fay Gris Bordeaux ñaar yoon lañ bëri ñu ma sindil benn mu daan ma benn lan laa ko doon wax si mise kos bu ñu bëri am mbër sol ab kos di ko tooñ dafa naa kos ñëpp a sol xam nga mais affaire la nii quoi mais kenn gisul ma wax ko wax bu dépassé xam nga kon ñun bu ñuy waxante si signature contrat nañ wax suñu diggante ak mbër mi kese ñu bañ a génn cadre lamb parce que laa déggee dafa génn cadre lamb waxee ci beneen domaine quoi te domaine wax dëgg yàlla ma suwaay boo leen daal xam nga rek boo léegee defati buy communiqué mu xool ne bi communiqué bu baax dama dëgg yàlla nag man de xamaluma ko dara lu bon loolu la laa xamal laa a guerre ah gis naa ci moom nit ku dal la nit ku teel laa gis si moom kon nag loolu doom doomu aadama yi bàkki Sénégal ne laa de guerre nit ku teel nit ku yiw la bu nga ko yàq ci ay ay ci ay combat non. léegi su ma ñëwee ci combat Modou Lo Ama Baldé coow li bari na combat royal la. te boo xamante ni Ama Baldé yàgg naa top Modou Lo Modou Lo dàgg yàgg ko bàyyi xel ba léegi mu nagu koo jël. Hmm. combat boobu loo ma ci wax. ah li ma ci wax daal ñoom ñaari doomu Sénégal lan Ama Baldé doomu Sénégal la Modou Lo doomu Sénégal la yaa ngi dégg làmba ji yàlla na ko yàlla sottil ak jàmm salaam ni Nicolas mi nga xam moo tëgg làmba ji yàlla nak ko yàlla may kattan gu mu ko àggalee yaa ngi dégg loolu laa ñaan ñoom ñaan ay doomu senegal la ku ci am doom dam bi génnu Sénégal muy combat boo xamante ne encore combat bay suxali làmb ci la bokk moom Bombardier Balla Gaye combat yi suxali làmb ci la bokk moom Lac de Guiers mi nga wax ci la bokk Boy Niang Tapha kon la combat yooyu taxaw a taxaw taxaw yàlla na yàlla suñu borom xam nga sotti lépp ku ci am ndam rek ñoo xam ne ndam bi génn Sénégal quoi. Mhm. léegi ñu ñëw ci question bi nga xamante ne actualité la ndax gis nañ euh, tout récemment ñu ne nu mu tuddee di kàggu éducation sexuelle ñoo dañ ko bëgg a jàngal xale yi ci école yi noo gisee loolu. ñun surtout euh, dañuy bàyyi xel na ñun ay jullit lañ man loolu laa bëgg ñu koy gisal comme ça man tey donc ab professeur laa yor école. wala ma yor sama xaalis tabax école toujours nañ gital maanaam jullit ji iman gi suñuy biiru xool xam ne ay ñun ay jullit lañ xeetu seen Muhammad am na loo xamante ne suñ diina may ñu ko imagine sa doom na ci école di jàng xale bu ndaw ah xamagul sa awraam nu mu tudd xamagul awraam nu mu tudd moom xale bu ndaw bi mm-hmm. nga koy jàngal loo xamante ni ba xam ak yaayam da koy def kenn ak koy def te xale bu ndaw boo xamante ni xamagul ci dara kon kooku boo koy jàngal yooyu bu yàggee sax mën naa tëdd bu guddi sax di yéen di ko xam ak yaayam di xool ah imagine loolu amoon na fii benn waay boo xamante ni euh, dafa yor soxna yor doom yaa ngi dégg guddi jot ñoom moom ñoom ñaar papa jeeg yaay yi njëkk nelaw seen doom yaa ngi dégg bi njëkkee nelaw non non non doom ji moo njëkk nelaw après papa jeeg yaay ji le papa jeeg yaay ji bi nii sëy nag ci la xale bi xam nga gis leen nii xale bi dafa xëy su dem jubal loolu ci maam nag sama sama papa bu guddee day sama kaw euh, sama papa bu guddee day sama kaw kii euh, yaay. di di affaire yooyu quoi. donc waaw kay xamul xamu ko xamul loolu. mais nga bëgg a na xale bi loolu ci école yi loolu mooy lan loolu doxul lu ko fi def loolu baaxul de man de instant bi ci télé bi saa wu ma fi nekkee mu jugee entraînement ba toog fii xaw bi sama tey sama loxo laa koy téye saa wu ñu jàppee dara ma gis sax ñaar ñu waaj a koy zappe. daa rafet rafetul nga toog sa njaboot ñu teg benn film boo xamante ni dañuy jàkkaarloo ni ay jigéen di sëy ay jigéen di fóonante say doom yoo xam xamuñu dara loolu naa sul motion daal Sénégal ñun ñëpp ñu def benn xeex bu ka fi kenn amal loolu dafa ñaaw sax loolu rafetul sax ñu di ko di ko. déggee wax ji daal buñ ko fi dagganaloo nga génnee sa doom ci école bi. barke Rasulillahi sama doom day jàng français di jàng arab loolu boo amee ci école ma jël sama doom bàyyi ko mu jàng arab kese wala ma nga xam sax bonjour ak bonsoir sama newu ci loolu baaxul pourquoi. ñu ne ñu ne encore ma encore maa ngi fi journal benn waaye naan bon boo xoolee boo dem boo demee réewu nasaraan yi day école bi na lay jàngal yow fekkee góor nga bu la neexee sa sa sa sa sa vie yaa moom ah. góor wala ku jigéen ki choisir jigéen a jigéen wala yow jàngal xale yu ñuy seey loolu mooy lan affaire yu bon yooyu loolu mooy lan loolu ñu dimbali ak affaire yu góor jigéen ñi nañu dimbali. yooyu mën la am Sénégal amul ay daam la ñuy xaar ak du xaar yooyu am yooyu soxlawuñ ko ñun Sénégal góor sa góor ña jigéen ngi sa jigéen ña am sa jabar mu lay toppatoo tegal reer bu neex ngay reer lu ko dàq yow nga bàyyi fi sa jabar yow di wër sa moroomu góor lu gën a salte lu gën a ñaaw loolu moo tax ñun xeetu Seydina Mohamed billaahi Seydina Mohamed la ñu yàlla rusi mais bonte Seydina Mohamed yàlla alak nañu bu yàgg ndax xeetam xëy di jiitoon Seydina yaa ngi dégg dellu lu xool kaam nu demee hmm. yonente boo xamante ne tey dëkk bay góor jigéen ñoo fa nekkoon jabaram jiite leen te jabar jabar jabar jooju jabaram jooju jabar yonente la te jabaram jooju safara la jëm yàlla dafa dëpp dafa jël réew mu dëpp ka dégg naa ba ni ñu toogee waxtaan sax maa yow nii réew maa ngay dem dalagul ndax ndax affaire góor jigéen yi fa amoon kon nag président Macky Sall suñu président la jox na la cër torop ñu ngi lay ñaan amul brak ma amul ay benn président bu nekk ci àdduna bi ku mën a doon ci président bu la kenn gëmloo affaire góor jigéen ba nga valider a fii si dëkk bi ñun soxla ñu loolu góor ñi sa góor ñi jigéen ñi sa jigéen ña ab góor jigéen nag bu nekkee Sénégal fii ba nga sonal nit ñi da nga koy daggal bi mu génn fi dem ca borom góor jigéen ñam fa nekk mais ñun Sénégal fii réewu jullit lan réewum Ahmadou Bamba ne àdduna doon xaar Sëriñ Tuubaa yàlla may nu ko moo laa ji Malick nekkal naar bu weex tal sëb sikkin lay laal suuf mu lay wax ci Seydina Muhammad moo xam yow yow mu juddoo Màkka mënoo kaa xam. Seydina Limaamu ne fii ne mën a woon démb mën a tey yaa ngi dégg kon ñun lu lu nam ak ñun Sénégal ah. ah kon def lu baax rek moom moo nu war ama lu dënd sonal lay góor jigéen nañ jàll fële ak ñi ne ci école yi naan ay affaire jàngal suñu doomi ay sëy ñoom nag démb xool lu ñuy sëy bàyyi xale yu ndaw yi ñu ñu mel na nen ndax suñu toll nii kenn bëggul ko la gën waaye ku soon doom gën la hmm. kenn bëggul ku la gën de mais sa doom li nga jur boo sañoon tey mu gën la. kon nag loolu moom buñ fi ñu sonal nañu quoi vraiment bëggul nga quoi. Njoon waxtaan bi neex na waaye soo amoon kaddu yu mujj loo ñuy wax. ah di gërëm suma waa ji rek suma kilifa moo fi sama papa di sama yaay di suma lépp muy tey Roussard ndeysaan démb daf ma envoyé lu ma neex billahi wallahi taala dama toog ma envoyé sama portable ñu def ci euh, mooy li ko lan année bu na. bonne année. non kii lii 2020 bi ki gën a ràññeeku ci wàllu social kan la. Tayoub Sarr moo doon ko def lii. justement ma mën a tax raawul bi lii waaye moom lañ jox meilleur lii bi euh, ci deux mille vingt bi ñu génn. Mhm. ki ci génn def sociale moom lañ ko jox moom la moom takk boobu. ok nu ñu koy waxee sax waaye moom lañ def daal lii bi daal. waaw moom daal mooy meilleur social yi ñu def social ci deux mille vingt bi moom mooy meilleur parce que coronavirus joxe na un milliard te kenn defu ko fi neel benn. liggéey Touba sa kanam bu joxe deux cent quatre vingt millions kenn defu ko ci muy ñaar. te avant bi ñu laam-laamee corona ci commencement ba joxoon na Youssou Ndour trente millions ak ak yi nga xamante ne def na ko ay ay affaires yu bëri mu jënd yóbbu Fuuta xam ma Yoof gée mu dëkk maire mu jàppale lu mat quinze millions ak ay affaire te jumtukaay yi loolu moom rek moo ko fi def ci Sénégal nu def ñu takkal ko bonheur boobu nag loolu jox ko loolu nekk yow 2020 yaay yaay nit ki si gën a ràññeeku ci wàllu social loolu defal tey Sarr te man mi wax yow mooy suma kilifa yaa ngi dégg mooy sama papa fi mooy sama yaay moom la ma yàlla sama ñaar waajur yaa ngi dégg di ma jàppale gauche di ma jàppale droite jël ma dugal ma ci famem maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax Tahirou Sarr yàlla na ko yàlla sama borom fay kooku dama papa laa koy wax mhm. waaw ndax position bi taxee si man may gërëm soxnaam bu baax a baax Marème si saar ki jàppale borom këram yàlla na ko yàlla sama borom aar soxna Jeynaba jàppale borom këram yàlla na ko yàlla aar yàlla na yàlla aar njaboot Tahirou Sarr yëpp ñoom Seydou sa États-Unis ñoom Tidiane Mohamed mu ndaw Siraja ñoom ñëpp vraiment ñoom ñoom Serif bàyyiwuma kenn ndax ku lim da ngay juum ñoom Seydou Kabe maa ngi gërëm ñëpp maanaam famille Taïba Moussa daal yàlla na yàlla sama borom aar vraiment jàppale na ma trop jàppale na ma fa jàppalee ma photo yi nga toog ni Taïru moo ko jënd wallaahi. discours mhm. baax la loolu la may defal ba pare yëg ma kon nag nag ci deux mille vingt bi ne moom mooy nit ki gën a ràññeeku ci wàllu social yàlla na ko jig deux mille vingt et un bi ñu nekk nii yàlla defal ko yokk xéewalam ba mu defaat ci lu raw li mu defoon ci deux mille vingt bi ndax yàlla may na ko xol boobu yàlla na ko yàlla aar yàlla sàmm ko mooy gërëm suma baax Babacar Diop bu baax a baax ak Mamadou Diagne moom gërëm léegi di gërëm bàyyi ma joon foora Serigne Assane maa koy gërëm bu baax a baax Mor Diop suma grand frère Assane Abdoulaye Thiaw Mañang waa kër gi sama doom yi ñoom ma jigéen maa ne ñoom ñoom maa ngi gërëm ba boo dugal ñoom ñoom may oona ma ñu ngi lay seetaan ci YouTube bi kon nag xam nga may wax waa Thiaré gi yàlla na yàlla soo borom aar suma euh, yàlla ko yàlla soo borom aar quoi yàlla def ci réew mi jàmm Souleymane Ndiaye président maa gërëm bu baax suma mag la suma lépp ku ma jàppale yàlla na ko a soo borom Abdoulaye Diop maire ginnaaw ray kooku dama doon du ma gërëmati sax ndax yàlla moo ñu boole ma ak moom njega ñaameeru caare yi képp kuy jàppale baa ma yoon daal abib ak ñëpp bàyyiwuma kenn yàlla na yàlla sama borom ubbi libinti xéewal njin laay suma mag suma genn wàlla maa waasu maa ci man ci at mu bees mi yàlla nu rek seen njiit laay yàlla na ngeen bokk ci suñu kawee ci barki Seydina Mohamed yàlla bi la bunti xewal boo amul jabar yàlla nag yàlla may waaw boo amee jabar nag yàlla boo am ñaareel jàmbaare yi <laughs> yaa ngi dégg boo amul soxna yàlla yàlla may soxna jabar daa neex de célibataire baaxul leer laa la wax beneen célibataire dugg àjjana <laughs> jabar dafa baax leer laa la da ngay tànk tranquille ñu lay toogal lu neex di la wax lu neex xam nga ngay bëgg quoi di la toppatoo kon nag bokkul a célibataire célibataire takk leen jabar kon nag sama waa ji yàlla na ko yàlla may jabar ju baax ci barki Sénat Mohamed. kontaan naa trop waay jërëjëf waay. gis ngeen ni lay demee ci wasaare làmb tey nag euh, tey le premier janvier deux mille vingt et un ñu ñëw seet si ki nga xamante ni mooy Baye Mandione boobam baax la ñoo koy ziar maa ngi gërëm sama cameraman bi nga xamante ne tey feetam la waaye dama koo yëkkati mu ngi kaas rek nag waaye xam naa ne bu déggee kàddu bàyyi ma ñoon yi xolam dina sedd di gërëm ki nga xamante ne mooy Adama Sall borom savon yi maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko wax na nag savon na ñëw bàyyi ma ñoon gi dafa maa dik saabu ba léegi nangoogu ma ko jox waxal ndax mu jox bokk jàmbaar saa jox ko saabu yi <laughs> ndax ko xool nii nii yaa ngi dégg champion la te yite woon na ko te jot na fu mu toll nii pour mu leer nañ soxna yi wax si moom waaw loolu da ci am solo quoi vraiment gis ngeen noonu lay demee di leen wax ba beneen yoon benn émission ci wasaare làmb jërë ngeen jëf ba yaay